bi la doomu aadama yi di dee ci réew mi lée ëpp na waa réew mi moom duñ ko sangee deret ah. comme ni ko àlla maxtum doon waxee waaw laaste xoolal ma benn xale bu jigéen bi lée fukki at ak ñeent dong la am de waaw dañu koo fekk mu daal di faatu allahu akbar laa ilaha illa allah tabar ñi la xewee dee ci benn dex aha te bi kat barki déem boo njaay ba léegi ni ñu ngi koy wër daa demoon jënd soow dong de ah waaw yéene kaa gi ne waaye jàppal ne am na beneen musiba mbaaba kumba boo xam ne day ca gannaaw la xewee dama ne la amadou mi lée waaw bal lañ ko dool mu daal di dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun laa ilaha illallah te benn jigéen day la doon sowe di ko jàppale ci ay agresseur gars yi daal di koy dóor balu fetal ca saasa la illa laa ilaha illallah les fa yéene kaay yi roti day ma ngay continuer ba léegi ni lée léegi ko yéene kaay ko maa la ca mën a wax dara waaw waaw ñetti ci ay doomu bi dee ci ay waxtu doonga lañ leen wàccee ñàkkum kaaraange bi nga xam ne moo am ci Ndakaaru njaay jël jom gi lée mais doy na waar doy na waar doy na waar Amadou Diallo mi lée waaw dama ne la da doon protéger benn jigéen laa la wax ca Grand Yoff ah ñu daal di koy dóor bal mu dee beneen xale bu jigéen a ngi ni la toll ci fukk ak juróom day ah dañu koo rey jabar ji laa la wax waaye copine ma day arrêté nañu ko waaye xoolal ma nijaay ji le jarbaatam day moo ko jam ñetti jam-jamu paaka laa la wax ni lée nijaay ja dee la ilaha illallah te ab caabi dee moo leen boole de ab caabi jarbaat bi tamit drogué la fukki at ak juróom-ñett dongo la am jël toji tubitéel wutali ni jaay ja ca ko ni jaay ja jamee mu dee tttttttttt waa réew réew mii moom li fi xew lan la source aané yow gaal gi nga xam ne day daa suuxoon kon ca naba ji ca maatam waaw jàpp leen ne xale yooyee am na ca kenn koo xam ne ko néewam ba feeñ na waaye ñaari néew ya ca Pikine di Aziz Dabala ak waa li mi lee yëral source a nañu la bu day moom na bu lay waaw waaw ak yeneen xale yu góor ya delloowaat nañ kon ca police ba retour de parquet lañ am kon ni ki démb waaw nañ jàpp ne nag kon seen jahanama day di galère gi lée ma ngay commencé nag les ko yéene kaa ne en tout cas procureur ba day Pikine Guédiawaye waaw lam wax dali nee na ñoom nabu lay ñi lée nañ leen dugal kon ca biir kaso bax la ilaha illallah waaw keneen ka nga xam ne moom lañ doon wër day mujj naa dikkal boppam procureur ne déggoo ma de dama ne nabu lay ak ma àndal ñi lée ci jëf ju doy waar ñoom ñëpp dañoo war a dem dugg kon ca biir kaso bax <laughs> waaw waaw parce que dañ cee laale du samay kaddu de procureur mooy wax waaye gis nga na bu lay moomee waaw daal dinay weddi kon mbir ma ca suuf waat na ci mu am lu tedd ne laale wu moom na bu lay jege moom la bu lay yéene kaa gi ne waaye moom na bu lay la ko lor ah téléphone ba bokk na de aha dama ne la Sonatel liggéey mi nga xam ni kon defaral nañ ko police ba day la dugal na bu mi lee loolee bokk na ca ku ca nekk daal en yaa ngay weddi téléphone am ba doon yuuxoo ay booru minuit te loolee moom na bu na ko kon ba tëdd ca suuf attakat ba nga xam ni moom lañ fa seenee jébal dossier a am la mu wax daa mooy nabu lay ak juróom benn xale yu góor yi lée nañ leen dugal ci biir kaso bi a la wax parce que deewu Aziz Dabala ak gone gi lee di waali laale nañ ca yéen a kaa ngi ne waaye démb dee tribunalu Pikine ak Guédiawaye koo gé foo sànni mbattu mu tag laa la wax aa waaw waaw laaste escorte ba nag sécurité bu doy sëkk mo am kon ca bërëb ba laa la wax waaw xanaa ngi soo oto bi yi nga xam ne ñoom ñoo leen indi woon libération yi ne kaa ne gis nga duumul meurtre boobee ca Pikine Technopole waaw mu àndal day affaire baa ngi commencé garaaw nag ma ngay garaaw de ma ngay garaaw te ñoom lool parce que procureur Pikine Guédiawaye boobee daal dinay sàkku nag ñu ubbi ci ab information judiciaire pour assassinat la ilaha illallah ay nit ñun rey ak yeneen yeneen waaye procureur nee na Nabou Leye ak juróom-benn xale góor yi lée leen dugal ci biir kaso bi laa la wax laa illallah delluwaat nañ police danañ dellu soit tey jile en attendant ñuy xool nag ban siis lañ koy jox Fallou Diop moom nga xam ne dañu woon may waaw bàyyama ko indi laa la wax Fallou Diop dee daa wotoon bopp ba ba mu set wépp pour réeral enquêteurs ndax benn vidéo surveillance moo ko feeñal en tout cas ñàkkub kaaraanga bi nga xam ne nekk na ci réew mi la day doy waar Sonko day ci 24 heures yéene kaay waaw ci dakkal gi nga xam ne kon dakkal nañu ko activité minière la long de la commission de sécurité nationale waaw waaw activité minière yi day dakkal nañu ko ba fanweeri fan ci weeru juin vingt 2027 laa la wax l'info yéene kaay ne renégociation contrat ba doon dox ci diggante ASER ak aéroport APC waaw junni ak juróomi téeméer ci ay village lañ waroon a yóbbu ay courant léegi nag junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñeen fukk ci ay village ñaf mille cinq cent rek lañ waroon a def léegi mille sept cent quarante village laa lay wax ni lée courant ba dana fa yegg aha waaw te xaalis ba kat ca quatre-vingt-onze milliards huit cent trente-trois neuf cent quatre-vingt mille francs la même xaalis bi même xaalis bi laa la wax renégociation boobee directeur général u ko def ñaf lañ war a def kay yoor yoor yéen kaay nee na agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle waaw xanaa kilifay bees yi lée dañ leen a waxul am wala ñoom kilifay bees yi lée dañoo def yëfumaa tey maara di taali dama ne la seen charge yi nga xam ne dolliwaat nañ ca dix millions waaw moo jaaxal ñëpp yow nit ñuy wàññi ay dépense ngay yokk ay dépense yéen kaay Serigne Saliou Gueye gi ne xanaa direction bi lée waaw xanaa waxul gi yëpp conseil de surveillance ba ci coppite bi nga xam ne kon maanaam indi nañ ko ni lée coppite ñu bëgg ca Air Sénégal day mooy subi ko yëral 24 heures yéen a kaay nee na Air Sénégal boobee déclenché nañ ko de ah waaw waaw Alaaji Malick Ndiaye ministre dem ak dikk day ah a na dinañ def suñ kéemtalaay kattan laa lay wax ne ba sauver Air Sénégal alhamdulilahi rabbil alamin en tout cas jub-jubal jubbanti day la Ousmane ak Diomaye woote Dakar Times ne Moussa Diakhaté day bind na ay question de ca Assemblée nationale waaw te ministre finance ak budget la ko bind de Cheikh Dibakaay wuyu JP Morgan mi lay ak 450 waaw dikk leen ngeen leeral ko li leer ba leer mooy conseil économique social et environnemental day waaw ak au conseil des collectivités territoriales seen bakk nañ ci xottu gerte de yaral les éco yéeni kaay nañu tasub au conseil boobee ak conseil économique session ba day suba ubbi de waaye député Benno Bokk Yaakaar waaw daal dinañuy def seen association dama ne la def nañu bloc bureau assemblée nationale boobee tey lay daje réunion gaañe nañ da ngay manœuvrer lu ñu mën ca assemblée nationale ki nekkoon defuwul de parce que assemblée nationale day waaw mën naa jëmmal te mën naa dëggal ay coppite ci constitution bi de waaw waaye mën ta tas ay institution laa la wax professeur Babacar Gueye ah nee gisuma dara loo xam ne lu dëng la wala lu jubul ci lii jomaay def assemblée nationale waaye conseil day nekk ca au conseil ak conseil économique waaw song nañu nguur geeg jomaay de maar de Italie Elimane Diouf day nee na ce pas élégant waaye ko xam adduna doo def lii waay Cheikh Diop nee na conseil économique social et environnemental waaw mais am na ci réew ci adduna bi yëpp fu malaat nee na waaw a njëkkee mooy déclaré par la suppression des fonds politiques moom Fou Malade waaw nee na assemblée nan la mën a tase am kër goo xam ni moom moo ko jëmal l'info yéene kaa ne gis nga au conseil des collectivités territoriales gi lée waaw a conseil économique social et environnemental gi lée waaw boo bëggee dégg-dëgg gaa ñaa leen bëgg gaa yi bëgguñu de Walf Fadjri ne tasub au conseil googu ak conseil économique waaw député ya xam ne ñoom ñoo fa gën a bëri di waa bennoo day bari tëdd ca suuf laa la wax aa waaw gatsa gatsa kay mooy am ca assemblée nationale de maara day taal Thierno Bocoum day ci Dakar Times waaw nee na lii yëfu xale la quoi lii waa nguur gi def nii yëfu xale la c'est enfantin bugaan ngay dani ci tribune yéene kaa ne bagaay la une vraie bagaille au sommet de l'état aa bugaan ngay dani ne d'accord nañ de ñu tas au conseil ak conseil économique d'accord nañ de ñu sakkanal fukki milliards ak juróom ñin d'accord nañu fonds politique yi ak institutions yi nag Sud Quotidien ne en tout cas Diomaye day waaw sampal na ndënd majorité ba waaw ba noppi nag daal di nommé Mimi Touré mi lée au représentant du président de la République léegi day jàpp leen ne Mimi delluwaat na palais moom day jokkoo ak Diomaye directement sur ça ne gi lée waaw ak convocation assemblée nationale ba day ngir tas au conseil ak conseil économique Thierno Alassane Sall ak Bougane Gueye Dany day xëpp nañ gaa asib de maar di taali Alassane Sall waaw juridiquement amul benn kattan boo xam ne kon daa war a dugal loxoom ci ay da d' attribution de marché ministre hydraulique ak assainissement bi lee dafa violer la loi la la wax ah waaw waaw procureur nag fi nekk ni lee mi ngeen di coowal ONAS gi bugaan ngay dali day ne dama farata gaa ngi feneen koom gi nga xam ne kon maara day taali guddi ñu tol ni lee ñàkkub gi lee dexuk Sénégal di fleuve Sénégal baa nga ne lee di génn fa lam-laamee te par parloo ak wàllum corruption la ñu fa gis man bugaan ngay dani nag li may laajte mooy yow ay député Benno Bokk Yaakaar nan lañ mën a jàppee seeni naataango yu au conseil ak yu conseil économique di leen rey le quotidien yéene ne convocation session extraordinaire u assemblée le dictat de Diomaye Moustapha Diakhaté waaw nee na waa assemblée ñoo ko def ba leen Diomaye bindee naan day convoqué ak dañ ko waroon a convocation <laughs> parce que Diomaye amul prérogative naan day convoqué supérieur u assemblée nationale waxu loolee ñi naan Ousmane Sonkoy gouverner nag baaba ci yor yor yéene kaay na yow njiital gouvernement mais dañu ko fee teg pour muy gouverner un chef du gouvernement c'est fait pour gouverner ñaf ndaw gouvernance bu neex <laughs> waaye gouvernance ba de ak lu mu neex neex neex neex neex neex neex bu leen fàtte ne suul gaz du ko teree xañ dawi ndax Sonko jomaay te jomaay mooy Sonko boo paree ma ne la alaaji tëjal